Pastef ma ngay des ci coalition Yewwi Askan Wi di coalition bu ama am solo boo xam ne dem nañ ba ñi ko seq di ay leader la boole ëpp na politique ay relation judd na ci miinante am na ci soppante am na ci jaar nañ cooy épreuve yoo xam ne kenn ku nekk natt na moroomam ba am lu mu gis ci moom lu ko doy sëkk coalition googu dépassé na léegi politique ma gëm nag ni Pastef dafa am taxawaay bu mu am ci coalition boobu ma réaffirmer ko ne tey la Pastef gën a bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey lay gën a sonn ci lépp lu Yewwi Askan Wi di def tey la ci gën a liggéey pour ñu gën koo dëgëral ak décision yu mun a ñëw yi nga xam ne day concerner individuellement les acteurs de Yewwi Askan Wi ñaareel bi Pastef ci biir yi Askan Wi day gën a des ak gën a dëgëral intercoalition Yewwi Wallu ndax intercoalition boobu tey mooy majorité ci biir Sénégal majorité électorale majorité politique waaye mooy majorité sociologique bu amee lu ko nar yàq du jóge ci Pastef ndax ñun ay gor lañu ñun ñu ñàkk ci politique xam ni lii buñ ko defee ñàkk waaye des ak suñu ngor moo ñu gënal wor am dara moo tax léeg-léeg ne ñenn ñi dañ naan ñun duñu ay politiciens li ñu diggante woon ak intercoalition bi dinañ ko respecté ndax biir assemblée nationale am na ay proposition de loi yoo xam ne dinañ ko déposé bokk na ci yooyu mooy lu ñuy fexee ba kenn ku nekk ci Sénégal yi rawatina ñi nga xam ne dañ leen écarté te tegewul fenn mun a delloo si waat seeni droit civique ba ñu mun a compétir comme tous les sénégalais parce que sénégalais yi ñooy tànn seen président te naa ci ñëwaat loolu également. bokk na ci projet de loi yi nga xam ne ak commission d'enquête parlementaire yi nga xam ne waxante woon nañ ko ak sénégalais man mi di wax ak yéen ay fan ak fan ak nii maa ngi tëju di ci liggéey mun naa leen ne am na déjà. lu mu tuuti tuuti une quinzaine de projets de loi ak au moins sur une vingtaine de thématiques yoo xam ne commission d'enquête parlementaire war na cee taxaw dinaa ci dellusi loolu ci suñu taxawaay lay doon ci biir coalition bi ak intercoalition bi dinañu woote ci fan yi di ñëw en tout balaa weer wi di dee bu soobee yàlla ñi ñu fal ñëpp député dem lëloog ñoom ñetti fan wala ñeent wala juróom ci li nga xam ne formation lay doon pour préparer leen en tant que député waaye loolu premier formation rek la parce que day doon lu continue dinañu waxtaan ba tënku ba déggoo rek ci naka la ñuy duggee assemblée nationale ci groupe parlementaire bi wala ci groupe parlementaire yi ak lan moo war a doon suñu taxawaay biir assemblée nationale ñu ngi ciy liggéey moo tax ngeen gën ñoo dégg parce que dafa am jamono yoo xam ne jamono liggéey la lépp loo xam ne daal engagement la bu ñu jël ci intercoalition bi ak ci coalition bi dinañ ci taxaw waaye bu loolu weesoo nag li nga xam ne suñu programme la ñun parce que nag bokk yi dañu xam ni fukki weer ak juróom-ñett moo dox suñu digganteeg élection présidentielle fukki weer ak juróom-ñett loolu tuuti na trop. moo tax dañuy jublu aussi ci liggéey boobu te ñaari dàqantewul ndax it ku nekk Sénégal xam nga ni bu soobee yàlla mi nga xam ne moom rek ay dogal moom rek mooy dogal léeg-léeg nag nit beew ba fàtte loolu ñu jay nit ba mu fàtte loolu wala ñu jox ko as daggitu pouvoir nguur mu fàtte loolu waaye yàlla rek mooy dogal moo tax ma ne bu soobee yàlla moo ma di dogal man mii de Ousmane Sonko candidat la ci élection présidentielle 2024 incha allah bu ma ci génnee ndogalu yàlla dama naan bu ko sama parti nangoo parce que dama bokk ci parti boo xam ne dafa am nu muy doxee ñu am ay règles d'investiture kenn ku ne ci parti bi am sañ-sañ ne candidat la bu boobaa dañuy def primaire waaye li mu jëm ci sama bopp man am naa sañ-sañu wax ni te sénégalais yépp nag dëgg naa su ma ko waxee sax Sénégal 2024 am déet it tey jii opposition Sénégal ku ci présenté woon élection présidentielle 2019 rek mel nu man maa fi nekk opposition ba tey loolu la yàlla dogal ñeneen ñi kenn ki nee na bàyyi na politique ñaar ñi dem nañu fa ngeen xam donte ñoo àndoon signé ñun ñëpp ab charte ne du ñu reconnaître légitimité président Macky Sall au lendemain bi ñu bi ñu génnee ci élection ba te yàlla mbay ñu nag mu woon première élection présidentielle mu may ñu loo xam ne kawe na suñu jot booboog léegi ah su doon benn la man gëm naa ni yàlla ful na ko juróom wala fukk ndax ci campagne lañu jóge nag ku àndoon nañu ci campagne ak ku toogoon di ko seetaan ci réseaux sociaux yi xam nga fu ñu tollu Sénégalais yi ñu ngi ciy sant yàlla moo tax ma ne bu soowee yàlla candidat la ñuy doon pour élection présidentielle 2024 candidature boobu nag dafa lu mu ànd loolu mu ànd ak nag dañ ciy waxtaan ak Sénégalais yi waxtaan ceeg militants yi waxtaan ceeg sympathisants yi parce que dafa am solo orientation yi ñuy joxe mooy tegtal yi ñuy jox militants yi ak sympathisants yi ak bépp sénégalais boo xam ne dégg nga li ñuy wax gis nga li ñuy xeex te gëm nga ko ndax 2024 tànneef gi ñu war a tànn weesuwul ñaar diggante. ndax dañuy bàyyi suñu askan continuer nekk askan woo xam ne dañ koy yor ci lépp alal goo xam ne doo ko dugal fu mu war a dugg ci jaay alalu réew mi ci jamono jooju ci noot doomu aadama yi ci duma reye ak tëjaate ci yaatal ay programme yoo xam ne dëppoowul ak suñuy gëm-gëm ci biir réew mi ak ci jaay pasar pasare lépp loo xam ne sénégalais waroon ci mun am yaakaar war mu amal leen njëriñ wala ndax dañuy tànn loo xam ne day lalu ci souveraineté ak patriotisme mooy fexe ba téye suñu réew li nga xam ne yàlla jox nañu ko ci alal te macha allah mu bari lool ñu teel ko suñu bopp bañ koo bàyyi tubaab yeeg naar yeeg ñeneen ñëw jël ko yóbbu boole kook nag yóbbu sénégalais ci liggéey. ndax liggéey mooy defar réew kenn ku ne xam ni sacrifice la jële fi nger ba kenn dootul sa saña saña jël dërëm bu mu moomul ci askanu réew mi waaye dërëm gu ne nag ñu dugal ko fañ ko war a dugal xam lan mooy priorité ñaari modèle yooyu rek moo fi ne ci loolu lañu war a tànnee moo tax rendez-vous boobu ci rendez-vous yi gën a am solo ci histoire Sénégal la bokk buñ ko ratee rek nañu xam ni cinquante ans yi di ñëw wala lu ko ëpp dinañu continuer nekk ci jafe-jafe ak ci toroxtànge ak ci nooteel kenn ku ne di ko jooy fa nga koy jooye te kenn du am saafara moo tax ñuy joxe tegtal dañuy bañ ñu détourner suñuy militant moo tax yow militant bi yow militante bi yow mi di sympathisant ak sympathisante yow mi citoyen boo xam ne milité woo fenn waaye am nga yëg-yëg ndax nag Sénégal wax ñu ne bëri na trop waaye sympathisants yi ñoo ëpp militants yi de ku fi fal rek sympathisant moo la fal ndax ñëpp ñu dem jënd carte ci parti politique moo tax ñëpp laa waxal ku fi nekk ku ne diaspora fàttali leen ni rendez-vous bii rendez bu historique la rendez-vous boo xam ne moo moomaat suñu bopp la te mu dépassé Sénégal tey muy muy combat boo xam ne combat africain la may félicité di encouragé suñu mbokk Mali président Assimi ak ñi mu àndal wax leen ni siggil nañu ñu ñuy siggil te am nañu suñu jaajëf am nañu suñu encouragement am nañu suñu njàppale ba fu ñu dooleel